Sunugal 24 point net l'information à sa juste euh, mbokk julli yi maa ngi leen nuyu nuyu boo xam ne si nuyoo lislaam comme yàlla waxoon na boo fekkee la sa bokk jullit ku sa bokk jullit na nga nuyoo suma suma suur eh, Imaam eh, fan yi ñu am lu ñu dégg ci sa biir kër eh, ñu ne yeew la ñii ne leneen la kenn xamul lan la yow jamono ji naka ngay dundee mbir mi. ma dundee. ci fi ma daloon lu doon lekke la loolu doon lekke ah, nit loo mën a dund loolu ni nga fekkee dund nga dund ci nga yaakaar yàlla yaakaar mbokk jullit yi ah, nit na amul mu def lu lu lu man lu man loolu lay def ba fekkee nga ne kii mu ngi dund ah, joni leɓa e pular après mi wonina eyi moƴƴi Thank you. en calmini yul yulɓe mu ne mu ngi mboolem jullit yi calminango noon calmingol ko imol gimol to allah mu ne nuyu bi nga xam ne ni bu bàyyi ko ci borom bi subhanahu wa taala fi mu ne fi ma demoon yëpp ñoom la ndawa ino koɓe guurno ko ɗum men goodi sabu koɗo ɗi waawi sansanede gurna mum ko wawi ñamde kono noon koɓen tawi ɓe ñama ko ko ɗum ɓe ñamanno une melna ni kom eh, eh, li ngeen dund loolu la dund ni mu ne eh, jullit yëpp ay benn lañ waaw ginnaaw euh, nekk itam euh, euh, <coughs> mu ne ginnaaw ɓaawo o ɓe naɓi on to raven to ko mm. hono ɓurduno on toon non gonduno koɓe hoddirode allah e komin e, tawi ɓe mbawi dañde ko ko ɗum en ñamanno mu ne ñoom dañuy dunde woon foof ci ndogal borom bi subhanahu wa taala loo xam ne ni li ñu leen may ci lu tuuti loolu la ñu dunde woon foof sabu min mbawra wiide ɓe ñamta ɗum ɗo mu ne ñoom mënuñu woon wax duñu lekk lii duñu lekk lii lépp li ñu amoon loolu la ñu doon dundee foofu sabu so goɗɗo yii ɓurnoto jariji taw kadi tambar tambara mu ñoom ay gan lañu foofu woon eh, mënuñu woon eh, tànn loo xam ne ni li ñuy dundee foofu parce que ñoom ay gan lañu ɓe mbasiɓe ɓurnade min bate maɓɓe mune ñoom <coughs> munuñu wone guenel ci ñoom waaw nden noon e noon ko ko cakkode allah eden laaɗo ko min keƴi heen min jona heen mu ne li nga xam ne ni borom bi la dogal ñoom ci loolu la ñu foofu ba ñoom ñu ne leen nañu dellu ci seen kër. léegi bi ñu ñëwee bi euh, ñuy dund ba léegi wala maanaam am na changement parce que li nga ba léegi dañu ah. ko dañoo bismillah. ɗum jonde komin tawriɗo ko komin ɗannoon ɗo hoota men no ay ko ɗumin tawde mu ne waaw e, depuis ñu jóge fii ñëwaat fii kom li ñu bàyyoon fii e, ci dund loolu lañu dundee ba léegi mu ne ba léegi mu ngi yëngutu mu ngi yëngutu ba léegi waaw waaw alhamdulillah waaw ñu ngi ci xel bu dal ñu ngi sant borom bi subhanahu wa lépp loo xam ne ni yàlla borom subhanahu wa taala teg na ko jaamam ci ay nattu danga koy muñ muñee ko ngir borom bi subhanahu wa te yàlla wax na ko ci alquran mu ne alladina ida asabatu musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu ne jaam yi nga xam ne ni yàlla bu mu leen tag tegee nattu dañu wax ne ñun dey ci borom bi subhanahu wa taala la ko ci moom la ñuy dellu te ñoom yëpp dañ koy daa di delloo ci borom bi subhanahu wa taala yàlla mu ne ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun donc ci gàttal lii moo nekkoon ci li nga xam ne ni euh, ñu ngi ko doon jànkonte ci kër gi euh, lépp nag ci borom bi subhanahu wa taala la kana euh, li ñu dolli comme yàlla dafa wax ne innamal muminuuna ixwa mu ne yéen jullit yi ay mbokku ngeen donc mbokkoo boobu du man maa ko def du yow yaa ko def donc nag diggante jullit ak mbokkam lépp loo xam ne ni dal na sa mbokk na mel ni yow la dal te yonent bi sallallahu alayhi wa dafa ne al mu'min wal mu'min kalbuniyaan yashuddu ba'duhu ba'da yonent bi dafa wax ne diggante julli ak mbokkam dafa mel ni comme tabax mu ne day koolante mu ne tabax da gis an am na ay birig yoo xam ne nii ci suuf lañu féete am na yoo xam ne ni dañu leen dagg ay mocc birig wante birig yooyu yëpp dañuy muñala muñalante birig yi nekk ci suuf waxuñu ñun duñu nekk ci suuf ci kaw la ñuy nekk comme am na ñoo xam ne ni yàlla teg na leen ci kaw yàlla moo leen teg foofu ñi nekkee ci suuf nag aussi yàlla moo leen teg ci suuf ñoom ñëpp nag dañuy war a jàppalante loolu mooy doxal aduna bi loolu mooy jëmale aduna bi ci kanam ñu jàppalante ñun ñëpp ñu nekk benn jullit yi dañuy war a jàppalante sa mbokkum jullit bu mu amee lu mel nii na ko jàppale boo ko jàppalee nga xam ne nii sa bopp nga jàppale jàppale kon kenn yàlla dafa wax ne wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal odwaan yàlla mu ne na ngeen jàppale na ngeen jàppalante ci ragal yàlla ci lu baax waaw lii nag euh, mun na dal kenn ku nekk ci ñun waaw wante nag bu mu dalee kenn ci ñun ñun ñëpp dañu war a taxaw ànd def mbooloo jàppalante ba lii mën a dañ fi te yàggan mu ngi yàgg te nag wax yi wax ji dafa bari yàgg nañ fi wax alhamdulillah mbokk yi ñu ngi taxaw ñu ngi def seen lay kattan wante nañu gën a góorlu ñu xool parce que lii la kenn xamul nu mu mel ci suuf kenn xamul ndax am na fa pax bu rëy ndax mun na mabba kër gi kenn xamu ko yàlla rekk ma ko xam te yi mel nii nag kenn waru ko seetaan maa ngi ñaan nguur gi na taxaw na ci duggal loxoom moom nag yàlla may na ko kattan pour dindi li maa ngi koy ñaan na taxaw na taxaw mu xam ne ni lii nag ay mbokkam ay citoyen ñoo am problème na ci taxaw waaw bu mu leen jàppalee yàlla dina ko jàppale ku jàppale mbokkam jullit mbokkam yàlla dina ko jàppale comme incha allah ci gàttal maa ngi leen di jegul maa ngi leen di remercier ci li ngeen di def Eh, incha allah yàlla na leen yàlla jàppale yàlla nañ yàlla teg ci eh, yoonu siraatal mustaqim incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Sunugal 24 point